li njëkk war ci mukallaf mooy mu xam na muy wérale ak gëmam yàlla yàlla mëni su koo xam dëgg-dëgg waaye am na ca nuñ ko war a gëme bu ko defee nag mu xam na muy gëme boromam loolu mooy njëkk di warteefu mukallaf mu ne ni ñu ëpp jàngalee tawhid nag ci sow bi dañu topp yoonu al imaamul ashari nga xam ne li ñuy gëme yàlla mooy yàlla day am ñaar fukki melo yoo xam ne meloy mat la meloy sax la mënta ñàkk ci moom seeni safaan di ñaar fukki melo di ay manki di ay matadi jomb ci moom am loo xam nag moom mën naa am ci moom mën naa ñàkk ci moom bi ko génnee nag door a jàll ci yonante yi ak yu ci des yooyu nag lay tàmbali ci lu bokkutoo yàlla mooy alxaalam xamal ne daa sosu mooy yàllaa ko amal mu am fu mu tàmbalee am fu mu yem yàlla ci bopp nag mooy koo xam ne mësta ñàkk benn yoon te du ñàkk mukk-mukk amul fenn fu mu dale amul fenn fu mu yem muy al wujoodu ak alxidamu nga gëm ne yàlla lu am la bu wéewér mi benn nga gëm ne itam amul fenn fu mu dale muy ñaar boo ci boolee waarisu nag aji doonu jooju jublu ci doon alal ñu ngi koy doon ne waaye daa waleen rek ñëpp daañu jeex te moom du jeex man nga ne woowoo kon yetti melo ñëw na ci alwujoodu alxidamu albaqaawu yàlla ngay gëm ne lu am la wër a wër gëm ne itam amul fu mu dale gëm ne itam amul fu mu yem muy ñett melo ñeenteel mooy nga gëm ne yàlla kat moo sàkk lépp lépp lépp waaye dafa doy li ci boppam sëkk aajowul kenn mbaa lenn te nag lenn lu ne ak fenn fu ne ak kenn ku ne aajowoo nga jëm ci moom waaye moom daal aajowoo jëm ci kenn kenn mbaa lenn mbaa fenn melo juróomeel mooy mooy nga gëm ne yàlla kat moo sàkk lépp waaye nuróowu ceeg lenn lenn lenn yàlla nuróowut ak mbindeef dara dara dara te lépp lu bokkut ak moom rek mbindeef la melo juróom benneel mooy gëm ne yàlla kat kenn rek la ci dëmmam ji ak ci meloom ak ci jëfam kenn la ci jëmmam mooy jëmmam ji moom rek moo ko amee amul yeneen jëmm ju mel ne moom mbaa ju ko nuru meloom yi ba tey noonu jëf itam biñ ne yàlla kenn la ci mooy moom rek mooy jëf lépp lu bokkut yàlla rek jëfi yàlla lenn weesu juróom benn la bu ko defee na nga ci def juróom-ñaar yoo xam ne ay melo mat la yu mënta ñàkk ci moom li gëm ne yàlla amee na xam-xam boo xam ne mooy yàlla ci moom lépp la xam te lu ne na mu doon la ko xamee umpalewul dara dara nga gëm ne yàlla amee na coobare joo xam ne kenn du ko forcé ci dara dara du ko rëcc am lu ko soob rek ay am lu ko soobul du am muy ñaar nga gëm ne yàlla amee na ak dund goo xam ne te du ca topp mukk mukk mukk dund ko yàlla ca moom nga gëm ne amee na ab gis ba yàlla ca moom amee na dégg nga yàlla ca moom amee na it kàttan goo xam ne daal mënees naa wax ne dara tawu ko amut lu mënut lu mu deful rek waaye lu mënut amut lépp lu mën a am rek xam ne jombul rek mën na ko mu boole ca nag amee waxin woo xam ne mooy yàlla ca moom li nga umpalee jëmmam nag noonu nga umpalee waxam kon nga wax qudratu iraadatu xilmu xayaatu samhu basar kalaam juróom-yaari melo la te melo yi faaw mu nekk ci jëmm te bu nekkee ci jëmm ja faaw nga indi noo waxee jëmm ja ba mu ne ne melo yi nekk na ci moom koo xam ne qudratu kàttan mooy man lépp dara tawu ko daa nekk ci moom dañ koy wooye xaadir koo xam ne iraadatu nameel iraadatu nekk na ci moom xam ne coobareem lay joxe kon muriid la koo xam ne amee na xilmun xam-xam xam lépp te dara ump ko mooy xaalim ñett koo xam ne amee na dund ga yàlla ca moom xayin lay doon ku amee ab dégg ñu wooye ko samihun ku amee ab gis ñu wooye ko basir ku amee kalaam ñu wooye ko mutakallim boo tuddee juróom-ñaari melo yi wax itam nag jëmm jëleen melowoo na nga koy tudde muy yaar juróom ñaar fukk ak ñeent soo ca dee juróom benn ya nga weesu woon mu daal nekk ñaar fukki melo yu mat yoo xam ne moo sax ci wàllu yàlla seeni safaan nag mooy jomb ci yàlla kon xayun moo dellu ci xayaatu muridun moo dellu ca iraadatu xaadir moo dellu ca qudratu mutakallim moo dellu ci kalaam samihan moo dellu ci samhu mubsiran moo dellu ci basar xaaliman moo dellu ca xilmu suñ borom nag jombante nag ñu koy misaal ak dara xani tam si mooy amul dara lu mu doon te mbindeef bañ ko koy misaale mel ne ko yemaleeg moom bañ ne itam ci coobareem lay jëfee kon li ñuy wax ak tapp amul jeexit boo ko dee xool ci saahir day mel ne day soppandiku waaye nag balaa mën soppandiku dañuy wax nangam dafay nekk te nangam bañ faa nekk mais ne sawara buñ ne jikkoom mooy lakk dañuy sart mu am lu lakk ba noppi itam dara bañ a wax digganteem ak moom waaye sawara bu amul lu mu lakk du lakk bu ko amee te am lu wax digganteem noonu it du ko mën a lakk waaye nag dina rek sawara ci boppam bu amee lu muy lakk daal di koy lakk mel ne kon du yàllay jëf ci coobareem déedéet ndax bañ sànnee sma Ibrahim ca sawara wa te sawara wa tàng ba nga xamee ne picc yi koy picc yi naaw di ko tiim sax dañuy daanu bañ ci dugalee Ibrahim booba sawara am na lu mu lakk te boo koy xool ci zahir rek dara doxul diggante mu mu lakk Ibrahim waaye gis nga ne sawara wa lakk ko ndax yàlla moo lakk sawara du lakk taal yooyu moom la ñuy wax loo xam ne day sabab nga xam ne moom bu xasee am rek dañuy juddoo daal di am jarul nga naa bu fi nangam nekkee boole ci ak bu fi nangam nekkul boole ci. bu koy misaale jaaro bi nga xam moom nga takk ci sa baaraam su baaraam bi yëngutoo rek faaw mooy sabab si jaaro ba daal di yëngutoo jarul nga naa su baaraam yëngutoo ba noppi nangam dolli ko ca ba nangam bañ faa nekk loolu moo wutale alxillatu ak ak tabon yàlla nag lépp rek mooma dañu wax ne sabab bu amee rek mooy jur la ca sababoo mel ne ko yàlla amul coobare ci gannaaw bu sabab amee faaw rek la ca sababu juddoo ca déedéet lépp rek yàlla ataatil yuqal lañ koy wax ci wolof mooy wóotal ko ci meloom yi nga xam ne saxalal na ko boppam mbaa boog yonante bi ci boppam saxalal ko ko lépp meloom saxalal boppam rek bàyyi wante bi saxal ko ko des ko war a gëm doon sax xamuñu nu mu ko meloo it ñu gëm ko rek yàlla dafa wuteeg lépp lu sosu moo tax amut benn couleur buñ koy melale ni ki xees wala ñuul wala xeereer wala benn melo ci melo yi ba tey yàlla du lekk du naan lekkal naan mbirum bindeef la moom mi sosu ba tey yàlla deful jëmm ju ne léng deful it aw melo yoo xam ne mënta beru faaw day taq ci jëmm bu ñu delloo ci ak tabaxu ak ak taaliilu dafa am ci yenn xalaatkat yi wax naa mboolem yi nga xam ne ñoo sosu yàlla amutoon coobare ci ñu bañ a am ndax dafa mel ne ni sawara mel nga xam ne bu amee lu mu lakk te dara doxul digganteem ak moom rek faaw mu lakk ko yàlla yëpp li mu sàkk noonu la mel ci moom bi mu xasee am rek mbindeef dafa daal di tàmbalee soqi ko ci moom di am mel ne sawara wa tàmbale lakk te mënu ci dara ñu wax loolu nee nañu kon yàlla amul coobare ci sàkk gi mu sàkk mbindeef yi ndax moom ci boppam mooy cosaan li bi mu amee rek mbindeef yi loo ci xam ne amul lu ko tee mën a am rek faaw day daal di am ñooñu kon dañoo dàq coobare ak taalim muy añ la it am nañu wax wax ju mel noonu xel la mooy loo xam ne mooy sabab si su amee rek la cay sababoo daal di am mel ni nga ne jaaro bi nekk ci baaraam bi su baaraam bi yëngatoo rek faawu jaaro bi yëngatu nga xam ne moom nee nañu yàlla mooy sababus amuk mbindeef yi naka mu am rek mbindeef yi daal di am tadu ci coobareem kon rafetal pas-pas mooy jàpp ne mooy jàpp ne yàlla dafa amee coobare ak kàttan goo xam ne mbindeef yi jotewuñu ak moom dara lu may lu ko ci soob rek mu amal ko lu ko ci soobut mu bàyyi bañ koo amal nekkul ba tey jëmm ju ne léng nekkul ba tey luy taq ci jëmm ju ne léng xarab mooy loo xam ne day taq ci jëmm mel ne gudd wala gàtt wala yëngatu wala dal wala xiif wala mar mbaa mét mbaa naqar mbaa sonn mbaa noppalu yooyu bare bari lañu ni ki nelaw ak yeewu loolu mooy xarab xarab mooy mbir moo xam ne mënta taxaw moom dong ne jonn faaw day fekk jëmm rek mu daq ca yàlla nag kenn du wax ne jëmm ju ne léng la kenn du wax ne xarab la boo xam ne faaw day fekk jëmm mu daq ca yàlla nag kenn du waral ci moom dara dara dara dañuy wax ne lépp mi ngi aju coobareem loo xam ne coobareem aju na ci def ko mu def lu coobareem aju ci bàyyi ko bañ koo def mu bàyyi waaye yàlla daal kenn du waral ci moom dara dara kenn du wax ne nangam daa war ci yàlla kon ñaar fukki melo yi mu saxal seeni safaan mooy jomb ci yàlla ni nga ko jàngoon ci yeneen téere yi ci des li nga xam ne nag mooy jaayis ci wàllu yàlla mooy li mu daanele wa ma xalallaahi umurun tuftarad mooy yàlla kenn du wax ne dara daa war ci moom dañuy wax ne rek lépp lu mën a am mi nga aju coobareem su coobareem ajoo ci amal mu amal bu coobareem ajoo ci ñàkkal mu ñàkkal waaye kenn du ne lii yàlla da ko war a def mbaa lii waru koo def buñ gisee ci alxuraan wala ci hadis ñu jëmale ci yàlla baat boo xam day mel ne te comme réew mbindeef ñi ki jëmale ci moom alyadu loxo mbaa alwajfu kanam wala ak saaxu ak yeel ak yu mel ne yooyu su boobaa am na ñaari anam yu ñu cay jëfandikoo benn bi mooy nga taawil ko wëlbati maanaama dañ ko jàppe zahir sa te jox ko beneen prix ba tax mu naa wa ta'wilu sarfu lafzi xam zahirihi wa bayaanul muraadi minhu bi antu awwala al yadu fil aayati bil qudrati wa maanaahu qudratullahi fawqa qudratihim wa tuawalu alfawqiyatu bitaali fi lazama xala xaddi qawlihim al amiru fawqa al jaysh wa sultaanu fawqa raiya li mel ne bu yàlla ne yadullahi loxol yàlla fawqa aydihim nekk ne ko seen loxo day mel ne kon yàlla daa amee loxo yaar nag moo ci maanaam benn nga jàpp ne yadu boobu dañ koy tawil ci kàttan mi kàttanu yàlla nekk na ci kaw seen kàttan mbaa nga ne yàlla de am na loxo ni mu ko waxale bopp waaye moom nag moo xam na ab loxoom mel waaye mbindeef du xam loxoom boobee ndax kenn du ko niróoleeg benn loxo boo xam ci loxo yi mbindeef bam ne itam yaxaafoona rabbahum min fawqihim daañu ragal seen boroom ci seen kaw mel ne kon yàlla daa féete kaw ñu mën koo takk ci kaw danga koy taawil ci ak màggu màgg rek ndax boole woon al amiru fa waxal jëw si buur baa nga ca kaw xare ba taxul ci dëgg-dëgg mu nekk ca kaw xare ba day seen kilifa rek féete leen kaw lii ci waawam rek kon nag bépp baat boo gis mu ñëw ci alquran mbaa ci addis mel ne luy saxal yàlla ab cër mu mel ne da koy nuroo léegi dara ci mbindeef yi benn nga jàpp ne yàlla amee na loola waaye taxul nag mu nuróole ko mbindeef mbaa boog nga taawil ko ci meneen prix moo xam ne dana fa yell